sëriñ Ibrahima Diop sëriñ Ibrahima Diop mi ngi ganee àdduna ci atum 1873 jàpp 1874 ci dëkk bu tudd Massar Diop Massar Diop mi ngi ci arrondissement bu Sagata Guet fukki kilomètre ak juróom moo dox digganteem ak dëkk boobu mi ngi itim ci département bu Kébémer fukki kilomètre ak juróom moo dox digganteem ak Kébémer kon diggante Sagata ak Kébémer foofu la dëkk bii di Massar Diop nekk Cheikh Ibrahima Diop ci dëkk boobu la ganee àdduna jigéen moo tudd soxna kumba sill ja waajuram wu góor mooy sëriñ Mouhamadou Diop ñu gën koo xam ci sëriñ Mor Diop bi matee dal jàng moom sëriñ bi waajuram moo ko dalal lii di alxuraanul karim kon ci ëttub waajuram la jànge lii di alxuraanul karim ba mokkal ko géeju ci lool muy sëriñ Mouhamadou Diop mii ñu gën koo xam ci sëriñ Mor jóob am na itim ñu ne dem na gànnaar jàngi waaye daal li wér te wér daal mooy Masar Diop gi fa la jànge ba géeju moom sëñ Ibrahima Diop mi kenn rek la bokkal waajur wu jigéen di soxna Kumba Sill Jami ñu koy wax sëriñ abdul karim Diop ñu bare itam cheikh ibrahima Diop almasar yu lañ ko xamee waaye dëkk bi mu cosaanoo ganee fi àdduna ñu di ko wax masar loolu moo waral tur woowu di almasar yu dëkk bii di masar Diop maamam moo ko sanc jóge woon gànnaar ñëw ci réew mi sañc dëkk boobu di masar maamam jooju ñu ngi ko doon wooye sëriñ barxam Diop ginnaaw bu mu noppee am njàngam ci dëkk boobu nag la desoon di liggéey nekk ci ginnaaw waajuram wa nekkit doomu aadama bu tabe lu ko waay ñaan mu may la ko lu ko waay diisit mu fajal la ko boole koo dem nag bay wër àll bi di leb sax di maye ngiruk tabeem tabe googu ak mën maye googu moo dem ba bor topp ko ca bor ba nag juróomi téeméer la tolloo loon ca jamono jooju at mi bor bi xewee itam mën nañ ko jàpp ci 1901 jàpp 1902 Cheikh Ibrahima Diop nit ñi nag wala ñi mu séqal bor ñëw di ko fayee ko waaye fu ne mu dugg fa amul lu mu faye lii di bor bi ba tax na mu jaaxle lool ci naka lay def ba fay bor bi mu daldi solu dàllam ku mu yaakaar ne moroomam nga wala kilifa diine nga ci tund wi mu dem fa seeti la ngir diis la soxlaam soo su mu am muy juróomi téeméer yooyu mu yore bor te mënu koo fay seeti na ci ñu baree bari ci kilifa yi waaye ñenn ñi dañ ne ko juróomi téeméer amu fi waaye su fi amoon ñu man la ko jox am ñu ne ko juróomi téeméer amu fi waaye xol bu la ko mën a joxit amu fi am na ñu ne ko juróomi téeméer am na fi waaye xol bu ko mën a joxe moo fi amul mu jaaxle te moom munta fay bor bi mu daal di bind lettre ki ñépp yaakaar di ngeen gi mbindeef ak i sahabaam muy seydinaa muhammad sallallahu taala alayhi wa usmaan ak xalin ngir di leen di soxlaam soosu mu am muy juróomi téeméer yi nga xam ne nii moo ko tee nelaw ndax bor la bu mu amee biñ demee ba atum 1902 tombeek seexul xaddim jóge ci géej gi ñibbisi jaar ndakaaru ndar bari jàmm siise ñëw sànnoo si nag fas yéene faa woore lii di weeru koor gi foofu itim la cheikh ibrahima Diop mi dégg ne am na benn kilifa diine gu nekk ci sànnoo si mu dox ba egg fa keroog ñoom ñaar bi njëkkee gisee ci sànnoo si ci weeru koor woowu ci mois de décembre bi ci atum 1902 bi ginnaaw bu ñu joxantee loxo am nañu ab diir bu kenn waxul ñoom ñaar seexul xaddim ne ko yow yaa bind lettre bi cheikh ibrahima jóob ne ko waaw mu ne ko lettre bi da jotoon nañ ci bu yàgg waaye daf ñoo fekkoon ci xat-xat yi ñu nekkoon ndax booba sori woon nañ lii di réew mi moo tax ñu yeex laa tontu seexul xaddim ne ko xoolal ñaari saaku yee ba xam lu ca nekk cheikh ibrahima jóob jóg tekki ñaari saaku yi benn bu ne ñetti téeméeri dërëm moo ca nekkoon ca saaku yooya cheikh ibrahima diop bi muy konte xaalis bi pari téeméer téeméer la ko doon def seexul xadim ne ko benn téeméer bi mooy payuk seydina mohammed bi ci des mooy payuk ababakar bi ci des mooy payuk seydina usmaan bi ci des mooy payuk seydina aliyun noonu la ko toppoo bu ñeenti sahaba yi mat mu ne ko ki nga bindoon lettre bi de dingeen gi mbindéef sallallahu taala wa sallam ak i sahabaam lépp luñ leen sas wala ñu wax leen ko wala muy bor bu ñu war a fay man mii may ki kay fay mu desub téeméer mu ne ko man mii jaamub yonent bi maa la ko jox ngir li fayug bor gi jaare ci man te la nag sëriñ ibrahima jóob mi almasariyu daanug leer loola itam moo waral ak njébbuloom bi muy giseeg seexul xaddiim wër ku ko fayal bor ba moo taxoon ñu gisee waaye ca gisee booba seexul xaddiim wan na ko lu tax mu jaayanteeg moom nekkub murit seexul xadim téye na ko fa ab diir di ko liggéeyloo ginnaaw bi nag la ko joxaat ndigal mu delluwaat ci masar gi mu cosaanoo ca ba muy dellu itam la jotaale ngërëmam akuk ceexam ñu teewlu li cheikh ibrahima jóob waxoon keroog bi mu amee borub juróomi téeméer te mënu koo fay tam bindoon muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam ak i sahabaam lettre lii mooy lettre ba ñu teewlu ko bismillahi rahmani rahim fa alayya adyun ixwatin qassamtuha bayna alkirami laalla an yaqluha wa alayka ya muxtaaru awwal xismatin wa alayka ya siddiqana saniha wa alayka ya فاروق ثالث خدمة وعليك يا عثماننا ثانيها وعليك يا ليث الكتائب يا أبا الحسنين نور أيدينا باخها أنتم كرام لا يرمز بجائكم زائد نواري صدر ما شاكها عليكم مؤكات kon leetar boobu la seexul xaddim fayeloon ngeen ngi mbindeef ak i saxaabaam ngir firndeel leen ne rek Cheikh Ibrahima Diop bindoon na leetar ngir jaaxle ci borub juróomi téeméer yu munut woon a fay moo tax ñu indil leen lettre bi mu dellu Masar jóob moom Cheikh Ibrahima jóob nekk fa nag ab diir ànd tuuti ca wetu dëkk ba sanc fa dëkk bu ñuy wax Daaru Takrim ci atum 1903 ginnaaw Daaru Takrim googu sancaat na beneen dëkk bu ñuy wax Daaru Nahim ñu gën koo xam ci yaru ginnaaw foofu itam sancaat na beneen dëkk bu ñuy wax Kalsaan ci atum 1931 jàpp 1932 bi Seexul Xadim delluwaatee gànnaar itam moom Cheikh Ibrahima Diop mii dem na gànnaar seeti woon Seexul Xadim muy dem gànnaar ku ñuy wax maam ndongo am mar la àndaloon ci gànnaar bi seexul xadim ñibbisee gànnaar ñëw ca yéen itim daana ko fa ziyaare ji bi mu nekkee njaareem itim daana ko fa fekk di ko ziyaare ji ba seexul xadim sax daana ko jiiteloo lii di naaf ci weeru koor gi ci njaareem waaye kii di cheikh ibrahima diop almasar yu seexul xadim joxoon na ko ndigal mu ñëw féete tuuba nekkal ko fi mook cheikh mamadou moustapha cheikh mamadou faadal ak kii di sëriñ masamba mbàkke caat ma cheikh ibrahima Jóob bi mu nekkee Tuuba fi gaar bu mag nekk jamono ji tey jii foofa la dëkkoon waaye xam ngeen ne booba gaar bu mag amagul mu am bis taawam bi ñu tudde Moodu Yaasin Jóob foofa ci gaar bu mag la ganee àdduna foofa itim la génnee àdduna ci gaar bu mag mook Moodu Jóob téere mi waaye gaar bu mag ak Touba nekkoon lu méttee métti ci jamono jooju fi seex Ibrahima jóob di nekk mu am bis Modou Téere Diop mi nekkoon ab donga ci Cheikh Ibrahima jóob feebar feebar bu metti ndox mu mu naan mënu koo am ci feebar bi muy jooy ndox di wax ndox ndox ñuy wër ci kër gi ndox mu mu naan waaye lu tollook toq ndox sax amul ci kër gi ba Modou Téere Diop mi ca mar woowee ci la ñàkke bakkanam am na itam ñu wax ni muudu yaasin jóob mii di taawe mitim loolu itim bokk na ci sababu génnuk àddunaam muy feebar bëgg ndox mum naan di jooy ndox ba bakkanam mujj rot Cheikh Ibrahima Jóob nag loolu def ab pëj-pëj ci moom ak jafe-jafeem ndox ma ak metti waayu foofu di gaar bu mag mu bindaat lettre seexul xaddiim ngir di ko xamal ne bu sañoon daal dana delluwaat ca dëkkub cosaanam ba ndax daal foofu moo gën a yomb aw nekkin ci tuubaa gi lettre baytim lii moo nekkoon bayit ya inna rujuha ila al awtaani xaruba wa ya seexul xadim tontuwaat na ko ci ay bayit ngir jox ndigal di ko wax ne mën naa dem foofa te na sax ci jaamu yàlla liit moo nekkoon tontub seexul xadim ca bayit ya irja li rabbika wal muxtaaru sayyiduna la mu jóge tuubaa delluwaat nag ci dëkkub cosaanam di fa liggéey waaye teewul nag saa bu nammee seexul xadim ñëw seet si ko njaay njaareem boole kook di ko indil ay hàddiyaam way na seexul xaddim cib diiwaan ci lu tollook ñaat téeméeri fooy ak juróom benn fukk ak juróom fooy bu ne fukki way ak juróom ma nga ca ñaari doomam yiitim di mu mamadul moustapha mbàkke ak mu mamadul faadal mbàkke way na leen rakku seexul xaddim biitim di seex masàmba mbàkke itim way na ko kon moom bindkat la woon waykat la woon boroomub xam-xam la woon cheikh ibrahima diop nekkit ci dëkk boobu di yaru di fa liggéeyal suñu boroom ba 1931 mu ne day ñibbisi ñibbisiwaat Touba ci bi muy jógee yaru di ñëw Touba ba tolloog dëkk bii di Kalsaan ci la ko waa Kalsaan dogale ne ko ku baax ki buñ sañoon nga dëkk ak ñun suñu tool yee ay gent la kenn nekkutu fa mën nañ la ko jox jox la suuf sax ngir nga dëkk ak ñun Cheikh Ibrahima Diop na leen ci dëkk bii di lay mujjee sanc waaye ci dëkk biitim lay mujjee dëkk ci dëkk moo tax 1931 wala 1932 ba 1934 foofa la nekk foofu itam la génne àdduna ci kalsaan ñu indi ko ci dëkk bu sell bii di Touba. Cheikh Ibrahima Diop bi muy waaj a génn àdduna dafa yónni ay nit ngir wax leen ni képp koo xam ni yaakaar nga ko wala ngay ab soppeem nang ko fekk ci masar ñu defarlu këru masar gi bàyyi ko lay ko bam set wicc mu ne leen ci alxamis ja na ma fa ñépp fekk si dama leen a soxla nakate ca àllarba ja lay làqu mu teg ca ne nañ wut fukki ponkal yoo xam ne nii saa bu génnee àdduna nañ ko yanoo fii di kalsaan ba indi ko ci tuuba buñ ko tegaat nag ci suuf bu fekkee ne tuubaa jàppandiwul itam nañ ko yóbbu ci masar kon moom ñu denc ko Touba wala ñu denc ko Masar la waxoon fu ci gën a jàppandi rek kon moom bi muy làqu loolu la wax mu wax ne itim diggante Masar ak Touba fu ci gën a jàppandi nañ ko fa denc waaye daal ñi koy yanoo kalsaan di ko yóbbu Touba nañ fexe ba jëmmam ji buñ ko teg ca suuf kon moom Cheikh Ibrahima Diop mi ngi génn àdduna bisub àllarba fukki fan ak juróom ñaar ci weeru tamxarit ci atu 1353 ci gàddaay bi ñu yanoo ko kalsaan indi ko Touba denc ko bisub alxemis fukki fan ak juróom ñett ci weeru tamxarit ci atu 1353 ci gàddaay gi bisub làqu bi dëppoo ko mercredi 2 mai 1934 bisub denc bi dëppoo ko jeudi 3 mai 1934 ay xalifaam moom Ibrahima Diop nii la tëddee ci atu 1934 ba 1979 Serigne Mbacke Diop moo ko wuutu Serigne Mbacke Diop mii itam Seexul Xaddiim la ko duppee sëriñam ba 1979 ba 1981 Serigne Mouhamadou Lamine Diop moo ko wuutu 1981 ba 1998 Serigne Mouhamadou Diop téere mooy ki ko wuutu 1998 ba 2001 Serigne Mouhamadan Diop mooy ki ko wuutu 2001 ba 2010 jëpp 2011 Serigne Haba Babacar Diop moo ko wuutu 2011 ba nëga ni ku ñuy wax sëriñ Cheikh Diop ibnu sëriñ Mbàkke Diop Kalsaan mooy ki ko wuutu kon sëriñ Cheikh Diop mi mooy sët bi njëkk wuutu maamam ñu koy ñaanal mu taxawu njabootuk sëriñ Ibrahima Diop almasari yu ak waajuram yi nga xam ni ñoom la wuutu ci jal bi waaye doomu Cheikh Ibrahima Diop bi di sëriñ Abdul Wahab Diop toogul xalifa waaye ci diirub xilaaf magam yi meloon na ne moom moo nekk xalifa ndax magam ñi doyloo woon nañ ko ba daanaka xilaafa yi moom moo ko doon doxal ndax cër bu ko magam yi joxoon lii di màggaluk Cheikh Ibrahima Diop takku na nag ndax am na ay bis yu baree baree bari yuñ koy fàttaliku am na ñuy màggal bis bi mu génnee àdduna di fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru tamxarit wala fukki fan ak juróom-ñett yee ci weeru tamxarit di bis biñ ko denc màggal bu bis ba delsi am na ñu ko defal ay cant kon mën nañu wax ni màggal yiñ koy màggalal moom takku na lool moom Cheikh Ibrahima Diop màggal gi itam daanañ ko defee ci kër doomam ji di sëriñ Mbacke jóob te nekk ci Touba Daarul Xuddoos nekkit ci route bi jëm Gédé ñu koy wax jàkkay kalsaan am na itam ñu koy màggalale ca pincum boppam ma ca HLM kër bàyyi laat jàkkaarloog isbu tarxiya foofu nga xam ni ay tooli boppam la ndax bi muy nekk Tuuba foofa la daa bayale seexul xadim ba tax na daqaar gi nekk ci wetu jàkkay njoobeen ji wax nañu ne weeru koor wam fa baye woon laaxub daqaar ba mu doon lekk doom yooya moo fa saxal daqaar googu fa nekk lii di ndono nga xam ne lenn la ci lu seexul xaddim yoroon daa ko jëfandikoo itam soo demee ci kër googu fekk ko fa waaye njaboot gi ñoo sàkku woon ci man ma bañ a wax loola lan la waaye man mii di Abdourahman teg naa ci sama bët kon kër googu itam seexul xaddim bàyyee na leen lu ñuy ziyaare kii di Cheikh Ibrahima Diop di doomu soxna Kumba Sill Jaja ak Serigne Mouhamadou Diop ja ñu gënoon koo xam ci Serigne Mor Diop yàlla nañu ko yàlla fayal ci ka mu doon liggéeyal di sëriñ Tuuba Seexul Xaddiim te teg loxo ci njabootam gi te sàmm leen